al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislam yaa ayyuhal ladiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alal ladiina min qablikum كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa sallallahu taala wa sallam ala sayidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa leen di di leen di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñuy dëgmal weeru koor ñaan sunu boroom ñu àgg ci ak jàmm te dund ak jàmm te yàlla nangul ñu jàmm yàlla yëpp mu bokk ci li war ab jullit nag mooy waajal koo moom ramadan waajal ko nag ci ay anzar lay ame waajal sa bopp ci ne ramadan a ngi ñëw nga fas am yéene dundal weer wi am yéene dundal weer wi jaamu ci yàlla loo doon def ci lu baax nga yokk ko loo doon moytu ci safaanit nga gën koo moytu xam ne weer wu rëy rëy la yàlla moo santaane ñu war ko wax ci alxuraan ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba a asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum ci yéen koor niñ ko farataale ci xëy de jiitu woon ngir ndax ngeen am taqwa nit ki kon day mel ni meññetum koor mooy nit ki am taqwa eh, koor nag eh, ngir waajal ko jar nañu bàyyi xel ne ak jaamu yàlla la jullit bu nee na xam ne koor jaamu yàlla la du rek ab régime régime bu nit di def waaye day jaamu yàlla di ko di ci sàkku ngërëmul yàlla suma borom moo ko santaane mu di ko def kon loolu laaj na it boo koy def nga gëstu ba xam lim laaj lépp man ko bàyyi xel loolu euh, Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu leeral na ko jàngale ko waaye daan ko dund ak nit ñi ku gëstu fi mu jaar ak ramadaan da yëg ne ku bàyyi woon xel ramadaan la daan ko waajal lool waaye di ci bëgg lool it wuute ngi bari ñi nga xam ne seeni waxtaan bu ramadaan jubee mooy jàmbat koor gi leemu agsi moom de sëriñ bi daf daan yàkkamti koor agsi bu jegee bu jegee looy wax mun la tëluma dara ndax ak gan gi may waaj gi may séenu bu agsee mu koy tatagal di ko màggal yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila xasidaam yu am solo yooyu ak bayit yooyu mu ci def yoon ne gan gu tedd gan gu màgg goo xam ne saa buy ñëw dama yàkkamti mu agsi waaye nag du ma bëgg mu dem mukk ndax daa xam li ci nekk ci aw yiw di pexe boo xam ne jullit mën na cee màng lu ne loolu bokk na ci li jullit ñu war a bàyyi xel bu ramadaan di jub waaye ñu xam ne ginnaaw jaamu yàlla na dañ ko dañ ko dañ ko war a tënk ci li mu doon koor mooy téye sa bopp ci lekk ak naan diiru bëccëg bi li tàmbalee fajar ba jant bi so xëy na nag foofu liñ bëgg bàyyi bàyyiloo xel mbokk yi nañ bàyyi xel ne koor lañ wax woor nag du soppi wax du soppi programme lekk bari na ñoo xam ne daanaka euh, seen cor soppi programme mu lekk la waaye du wàññi lekk te koor nag dëgg-dëgg daa war a wàññi lekk euh, buñ la nee vingt quatre heures sa yoon nga waxtu na ngay lekk ñu xaaj ko ne la benn xaaj bi léegi bu ci lekk bu ci naan loolu tekkiwut ne bu jant bi sooyee kon li nga waroon def ci bëccëg bi ak guddi gi lépp da koy boole nga def ko ci guddi gi déedéet koor fi fekkiwut loolu ab jullit bu wooree li jaadu woon mooy ay dépenses am daa waroon wàññi ko waaye bokk na ci ay aada yuñ topp ba tax suñu wooree ñaare ci weeru koor ci la dépenses yi di gën di yokku nit ñi dajale ay ñam yoo xam ne diggante bi jant bi soo bi jàpp du jot mënuñ su ko faa ñoom mbaa boog boo ko defee baaxut ci wér-gu-yaram baaxut tere lool woor ba ngoon nga dog waaye jëfandiku ba mel na da doon fay bëgg a fay añ bi ak ndekki la lépp bu caa boole reer neen am na ci ñoo xam ne lañu def ba boo leen séenee boo leen tiimee ñuy jëfandiku da ngay defee ne aw nag wuy jëfandiku lañ fa baaduhum yakulu aklal baqari moom sëriñ bi ko wax loolu it ñu bàyyi ko xel xam ne koor du soppi programme mu lekk waaye wàññi ko la loolu ma taxal la jaadu na bu ramadan jeexee nit ñi di wàññiku boo amee poids wàññiku ba ku la gis xam ne yaa ngi doon woor rawatina ñam yi nga xam ne day ànd ak suukar yi kenn xamut te baaxul ci wér gu yaram docteur yi eh, leeral nañ nit ñi lor ji ci nekk yooyu yëpp nag jar na bu ñuy waajal koor di bàyyi war ko xel xam ne it ak jaamu yàlla la eh, koor du biir rek moo koy def du biir rek moo waaye koor dëgg-dëgg gi tax ñuy wax sëriñ bi wax na ko fa sawmu ay yasuuma kullu adwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi nee na koor dëgg-dëgg gi tax yàlla bëgg ci jaam ñi mooy ci lépp koy def ni sa biir woore ba lekkoo naanoo saw làmmiñ noonu war a woore nopp bët say loxo say tànk kon yi lu ñu war a waajal la ñu bari nag ci noonu ñu ngi yam rek ci duñ lekk duñ naan waaye koor loolu dong sa bët daa war a woor du ma wax na woo ci lu xaraam ndax lu xaraam moom dañ waruñ si ko xool ci benn jamono waaye lu amul njariñ lu ne bu ko xool yi daga noonu xool sax waaye bu ramadan dikkee te amul njariñ bàyyi ko tam xool la am njariñ demal di di xool lu la jëriñ déglu it noonu foofu kon danañ ci profité it bàyyi loo xel mbokk julli yi bu ramadan dikkee xeeti théâtre ak sketch yi nga xam ne day day mel ne dañ koy feesal dell jaw yi waxtu wu ñuy jàllale yenn yoo xam ne dara mu ci njëriñ yenn yi sax dañ cee saboote diine loolu ab jullit wër sa woor ba ngoon du yàq ko waram ci noonu ndax sa bët daa war a woor say nopp woor kon del déglu di xool loolu amoon njëriñ lu xaraam moom jëlal nañ ko waaye loolu amoon njariñ bul xool wala ngay dégg loolu amul njëriñ sab tànk it bu ko jéggi jëm ci loo xam ne njëriñ na ci say loxo it noonu koor googu la sëriñ bi wax ne mooy koor yàlla yonent al islam na nit dana woor am na xarit boo xam dafa wax sax ne koo xam ne bàyyiwul wax lu dul noonu ak def ko yàlla amut soxla ci bàyyi gum bàyyi lekk naan nga xam ne kon ndekete nit ki mën naa woor ba ngoon lekkut naanul waaye amut tuyaabay koor wax na ko moom sëñ bi ne am na ku euh, ku ànd ak mbooloo mi di woor waaye ab xiif dong la ciy jële dara day tuyaaba du ko ci toppe ndax biiram dong la wooral waaye ma ngi wax lu waxut ma ngi koy def ma ci grand place ma ngi koy caaxaan ya ma ngi ci seetaan film ya yu amul njëriñ ya ma ngay jëw yooyu amul njëriñ wax ko koor balaa amal njëriñ jullit bi cëram yëpp ma woor kon noppi ci lu amul njëriñ loolu maa ngi koy bàyyi loo xel mbokk yi naka moo daan loolu loolu lañ ci soxla waaye bu fekkee nag lekk ak ñàkk lekk ñàkk naan képp nga def waaye ja des yëpp moom bay woo dara da nga xam ne dangay ngay xiifal waaye wóorutoo bi ci des it nañu bàyyi xel sunna si yéen islam ci koor fonk na ko lool lim daan def mooy bokk na ci sunna yi ñu fonk lool nit ki woor waaye bu dog jotee mu dog teel a dog teel dog ginnaaw bu jant bi sooyee loolu it nag naa bàyyiloo xel mbokk yi eh, dañuy bëgg nga dog bala ngaa jël timis waaye nag waxuñ nii ndaw ko ndaa yeeg yenn kilifa yi def nga xam ne dañuy ndogu ñoom dooru jël timis loolu li sam santaane dog julli timis la santaane ndax waxtu timis dafa gàtt kon dog tàndarma bu amee moo gën boo ko mun nga naan ndox dem julli ji boo ñëwee nag dooru ndogu waaye léeg-léeg nag waxtu dog jot ñu dajale yi bare bari bëgg caa jëfandiku door dem di julli ji eh, ñu ngi xañ seen bopp nag julli ci bopp waxtu ndax su waxtu jotee bañ nodd rek waxtu woowu mooy waxtu dog kon nañu dog dundal sunna waaye dem julli ji buñ ñëwee ndogu waaye xëcc julli gi wala xëcc nodd gi moom ay aada la waaye nag du sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom dafa daan dog ci tàndaram ak ndox bu amul tànn mun a góox ñetti góox yi ndox dem jàkka ji julli ji bu dikkee doon loolu it bàyyi ko xel xëdd it nañu xam ne sunna la yu bari ci nit ñi jàpp nañ ne buñ xasee tëdd du yeew nañ xam ne sunna si yonent bi alayhi salaam moo waxoon ne dee leen xëdd ndax xëdd barke ngi xëdd nag mi ngi tàmbali bu guddi gi xaajee saa bu guddi gi rek waxtu xëdd tàmbali na boo ñu gën a taamu nag mooy njël buñ demee ba nga xam ne boo noppee ci xëdd bi boo toogee lu tolloo fukki minute wala fukki minute ak juróom wala ñaar fukk jàpp jot loolu mooy fi ñu gën a tàmm kon koo xam ne day guddee reer it bu weesoo min wi bu ko ci yéenewaalee yàlla mën na caa def mu am yoolub yoolub xëdd waaye nag fekk mu yéene ko donte nag yeexe ko ba ci fajar moo gën loolu yi mat a mat a war a bàyyi xel ci koor ak yu demee noonu la xam ne it weeru alxuraan la Seydina Jibril alayhi salaam bu mu saan dikk day ñëw ànd ak yoon bi alayhi alxuraan ba ci koor ngu mujj wax na ne ñaar yoon mu raajaana ko alxuraan yëpp ñaari yoon. a ñuy dem ci jàkka yi def ay taraweex tànn ay ñu mën wattu alxuraan ñuy jàng alxuraan ju neex ñu di ko déglu dañoo soxla déglu alxuraan ji ku ko man di ko def baax na boo ko mënut si dem ci jàkka yi di ko fa déglu ak kaamil bépp ñu déglu ko war a pare ñaan yàlla luñ soxla la kon taraweex yooyu ak nag xiyaamu layli dañuy tuddi tahajjud boo tëddee ba guddi nga yeewu jóg jàpp nag jàkkaarloog su borom loolu it lu soxla ci ramadaan la kon weeru yiw la weeru ngëneel la euh, guddi gu tedd nga ci biir muy laylatul xadar goo xam ne su borom moo ko ci lëm genn guddi gu wàcc juróom-ñett fukki at ak nangam la ndax mu gën junniy guddi te guddi juróom-ñett ak nangam la loolu lu am solo euh, bi ci def it fukki faram yu mujj yi lépp yiw la looy def ci lu baax boo demee ba ci fukk fan yu mujjee na ko yokk ci bëccëg ak guddi nee na ku ci dogloo aji woor lu am ci tuyaaba ci kooram da nga am lu ñu toll yow kon def baax ci biir koor gi baax na loolu loo am nga di ci jàppale ñeneen ko defee tuyaaba ja am ci koor ga da nga am junni toll noonu te du wàññi ci tuyaabam dara kon weeru mbaax la woon yëpp islaam dafa tabe woon bañ di ko soow waaye wax nañ ne bu ramadan masal dikk la tab gi yokku sëriñ Tuubaa yëg radiyallaahu anhu noonu la meloon bu Ramadan masaana dégg lépp lépp lépp mbégte la koy def ba jeex lépp mbégte lay doon loolu it ñu ngi koy fàttali mbokk yi xam ne weeru yiw la weeru mbaax la paseb paseb mbaax daal la boo xam ne tey bu bu bu ja ñëwee ba jàll nit ki war naa fexe bañ jégal ko bàkkaaram yëpp ki ki perte dëgg-dëgg daal mooy ku Ramadan dugg Ramadan jeex te jégaluñ ko bàkkaaram naafila guddi am na solo lool islaam nee na ku taxaw guddi di la ngir yàlla ñu jéggal ko bàkkaaram man xaama ramadaana imaana waftisaaban xufira lahu ma taqaddama min dambi kon yu baax yooyu ci nekk nañ ci profité naafila yi ramadaan yeeg yi nekk télévision bu yeeg lu baax lu waaye xam lu ne tase yiw la bu dikkee na ko fonk boole ci nag baax ci nit ñi sa alal saw yiw loo man ci lu baax ci saraxe ci dimbulee ci jokk ak mbokk nga di ko dundal ndax occasion yu nit di am la yoo xam ne bu la rawee rek lu war raw la yàlla ci mbaaxam bokk na ci lim baaxee xeet yu dal Muhammad ay diggante yu gàtt mu may leen ci tuyaaba joo xam ni dana dund ay at du ko am ramadan noonu la diir su gàttalu soo xam liñ ci am ci yiw mënoo ko am ci léeg-léeg ci at genn guddi goo xam ne wecc na juróom-ñett fukki at loolu lu mat bàyyi xel la mbokk yi kon loolu lañ doon tënk di ñaan suñu boobu yàlla na ci àgg jàmm di ñaanal suñu kilifa yëpp nag yàlla taxawu leen sàmm leen ñaanal xeetu yoon yàlla Muhammad alayhi salaam leen ndokkeel ci ramadaan mu tedd mii ñuy dëgg mën lañ ci àgg ak jàmm weesu ko jàmm yu bare bare fekk ñu fi te yàlla defal ñu ci tawfeex yi ñu lim ci santaa ñu def ko te eh, mu nongol ñu ko lim ci digg lépp mu defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah